ko ne ko ah, man waxuma la lii man na ko yow yaa ko wax di yaa ma ko wax man du ma jox kenn ku ko sampee kër jafe-jafe du fa am waaye góor ñi léegi kalaas xaali jaawo gi koo ci gege noonu loxoom rek il faut nga tappaleel ko te su bu sutantee ca jalba genn jigéen bonu genn góor bon waaye su bu sutantee ca jalba man la Yacine Ndaw kër Paate rek fi maa waxee ci mbirum jigéen ñi laay waxee jigéen góor gi su demee dem ngoro ji ko indi yaakaar naa ne su ko buggutoon du ko ngoro ji indi kon bu demee ci ndeyam ak baayam ñaan leen ko indi ko ci kër gi yaakaar naa ne bànneex moo tax mu indi ko fi ak ñu sëy jaamu yàlla. ci biir loolu nag su fekkee ne problème dafa xam xam nga bëñ ak làmmeñ ñoo dëkk de waaye dañ dee màttante biir sëy néegu sëy il faut léeg-léeg jafe-jafe dana fa am waaye man ci suma gis-gis jafe su fa xamee. yow mi nga xam ne yaa nekk jigéen nga bëgg doom ju baax bëgg lu barke yow yaa war a góorgóorlu su la sa jëkkër tooñee nga sukk ne ko baal soo tooñee sa jëkkër sukkal ne ko baal maax man noonu laa ko gisee ndax suñ mag ñi fi nekkoon da cosaan de ñoom bu leen seen jëkkër yi tooñaan dañ leen ay neexal dem wuti ganaar rey ko toggal leen wala ñu rey bëy toggal leen ñëw neexal leen sukkal leen raamal leen leen dóor dóor dóor dóor ñoom góor ñi duñ leen neexal jigéen ñi ñoo leen a neexal li tax mooy soo bëggee sa doom bu waxee nit ñi noppi ñëpp di ko déglu yow jigéen ji yow loolu yaa koy liggéey parce que soo bëggee sa doom barke danga nga noppil sa jëkkër euh, téyel ko sa làmmeñ waaye su fekkee ne danga ngaa seeyal nit ki nag da ko jaay taar wala nga da ko jaay maanaa loolu du mën a nekk jigéen dafa war a sukkal jëkkëram raamal ko man de loolu laa gisoon suñ mag ñi fi nekkoon daan ko def waaye léegi da ngaa indi jabar ci kër gi. soo ko benn soo ko benn mu ne la fukk bu la ñaanee dara amu la ko mu mere la déedéet du noonu ñun nañ da sukk daraam rek te xam ne sukk daraam moo ñu war doom ji barke lañ bëgg ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp jigéen buy sëy bu ko neexee mu ne danaa jur wàll suma kër jëkkër te bu ko waxee te dëggu ca yàlla dana ko may wàll yu wala mu may ko buur wala mu may ko njiit waaye su fekkee dangaa bëgg ku ñëw faxaw nga rafet sa jëkkër bu la ne benn ne ko fukk képp ku koy def ku ne doo am lu barke wasalaam. boo ñëwee ne da ngay seet si doo am doom ju baax te sëy du caaxaan man nag maa mujj sey waaye xam naa ne sëy du caaxaan jigéen ñi nañ toppatoo seen jëkkër yi nañ fonk seen sëy jigéen ñu nekk si si si àll bi am bugg jëkkër bëri na de te munuñ koo am kon ku si yàlla may nga am jëkkër na nga téye sa jëkkër ak sa fukki lox nga defal si jëkkër ndànk ñun góor ku ñu nax rek yaa ñu moom góor ku ko nax rek yaa ko moom mu ñu ñoo daw si àll bi da dangi ñëw war a seddalee si yow bu ñëwee nga tàngal suñu xol di ñuy jaay bari wax loolu góor goo koy def bu yàggee du fi yàgg te bu yàggee du la fonk nit ki soo bëggee ñu fonk la dangay ngay jox sa jëkkër një su ne la baal nga ba su ne la defal nga def fooy dem di ko tàggu waaye sa jëkkër di la wax nga di ko jaay ëpp làmmiñ di ko jaay am maanaa loolu jigéen ju koy def waxuma da nga am doom ju baax waaye du du jomb de doom ju baax nag ku ko bëgg da ngay sëy te yàlla tax da ngay sëy yàlla tax mag ñi bu njëkk bu fi na amoon ci kër mag ñi ñooy dajee toog waxtaan doo dem si police doo dem ci dara waaye jamono bi ñu toll nii histoire boo mënta am ñu nañ dem si para nañ dem ci police loolu nañ ko baax loolu dafay yàq mbokk te luy yàq mbokk war nañ koo daw nañ ànd nekk benn luy defar mbokk gi ñu toppatoo ko waaye ngelis ngelis nga yóbbu ma si para man de jigéen ma yóbbu si para lu ma la bëgg bëgg man pare naa si yow wóor na rasulullah jigéen bu ma bëgg soo ma yóbboo si para rek pare naa si yow kon nañ bàyyi para yi waxuñ ne amuñ njëriñ si réew mi de am nañ fi njëriñ torop ndax ñu ngeen nelaw bu baax ñu aar gannaaw yàlla ñu ngi ñooy aar kon nag suñ amee problème rek ñu ne para yi ñun dëkkandoor yi ñun mbokk yi nañ ko bàyyi nañ owante si penc mi waxtaan joxante loxo. xaqataay ree waaye su ma bokkee yow nga yóbbu ci para man de su ma la fonk naa la man Ousmane Ndiaye pare naa ci yow kon wasalaam. bu ñu seetee sëy ko tàmbalee ba fi moo jeexee yëpp teraanga la te doomu bi lum naxari naxari deret lum xamadi xamati buy ut jabar foog mu ànd ak yar ak teggin ba pare it nag bu ko buy yónnee ñañ gën a fonk ca dëkk ba wala ca gox ba ñooñ laa yónni muy ay kilifaam jël guru yóbbu ci jàkka ja ñu toog fa wax wax yu rafet jaarale yëpp ci teraanga kon waay waay buy jeex na jeex ci teraanga para sëy taxut ñu jóg sëy du demukaayi para ndax li xew mooy li olof yi di wax na jëf lu jara rafetal la ndax nettali du màgget boo amee sa jëkkër problème yóbbu ko ci para na la wóor ne loola nga def dina la toppa ba toppa sa doom ndax bu sa doom am sëy jee am problème li ñuy wax mooy kii yaayam fii lay yóbbu papaam ci paaraay fanaa mbiri sëy comme que ci teraanga lañ ko dox yóbbu ko ca jàkka ja wax ci teraanga bem sotti bu amee problème nañ jaar ci teraanga jooju ñëw wut si woon nañ jóg bu problème amee bu nuñ ko sol ci biir néeg bi ñi nga xam ne ñoo ñaani woon nañoo ñu jóg léegi nag foog naa ne mbiri aada yooyu yëpp dañ ko bàyyi te mag ñi eh, ñi daan jagal bari woon nañ ndax sëy duñ ko tànxamlu bu ci dara xewee ba mu génn ci biti ñi nga xam ne ñoo ko seq war nañ cee teel a jóg ñu wax ci mu jeex problème du ñàkk ci biir néeg waaye problème yi néegi sëy warut a génn bay dem ci kër alkaali sa waxuma la bi ci para ndax para yi ñoo dem duñ seeni kilifa ñooñu nguur gi ñoo leen fi taaj pour ñu doxal luwaa gis ne ki am dëgg jox nañ ko dëgg ki ñoo tooñ jox nañ ko dëgg waaye nag mbiri néegi sëy bu amee problème am na fu mu war a dem fu mooy ak ci para ay ñeneen di la affaire criminal yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi wër di sàcca di toj néegi ni ki bandi yu mel noonu waaye li nga xam ne ci teraanga lañ ko sasee nañ fexe oytandeku di ko jeexal ci foo xam ne fii dafa yàqu ba faw te yàqu-yàqu boobu dafa toppa njaboot gi be ba ba ba faw loolu rek laa ci buggoon rek sëy sax dañ wax kaadi sax waaye war dëgg-dëgg warutoon a foofu ndax kilifa yi ko seqa ba takk ko ci teraanga dëgg-dëgg bu jeex ba nga xam ne dara desut lu du jeex nag war naa mun a jeex ci ci ci ci ci teraanga ci biir néeg bi ndax kenn xamut surtout nag bu ngeen demee ba am njaboot sëy bu njaboot juddu du jeex ndax saa yu njaboot gi dara xewee rek foog ñaari wàlla yëpp daje foog ñu wax foog ñu diisoo kon buñ ko jeexalee ci teraanga dafa diisoo ba su ñëwatee rek dafa neex a defar kon ñu ngi ñaan du fii rek waaye képp koo xam ne ñu ngi ci ñun ñu ñëpp ci nekk ci sëy nañ bàyyi suñu xel mer jëf rëccu rek mer wax rëccu rek nit ku su meree na noppi di nga gis ne lu bari ci néegi sëy yi moo ko yàq ñeneen ñi dinañ dem ba nga xam ne sax ci leetar la ñoo mujjee da ngaa wax ñoom ñaar ñetti baat ñu dugg si cabinet bi binda leetar bi joxe fase naa ñaari fan ñetta xel mi gi xol bi giif mu bugaat ku ne nga yónni te leetar neexu la weddi xëy bu nee sa jabar la ci biir néeg bi sax nga ne ko fase naa la mu mer génn dem sa xel mi ñëw ñu naa ah, yaa ko fase nga ne waxuma ko waxuma ko kay wallahi su ko xee mu dellu si seen si ngeen continuer seen waaye boo xasee binda rek am am na am na am na li te ñi gaaw bind nag ñooy gaaw a yónnee amoon nañ benn góor ndeysaan daf ko daan def rek saa yu difidee rek meer fase jabar ji mu yónni nit ñi dem jëli indi mu def ñu yónni ni ñi dem jëli nit ñi sonna nag mu yónnee jabar ji meer dem nit ñi toog rek toog toog toog ba mu yàgg mu ne man daal faa foog ne dëkk bi xamuma fi mbokk mooy li ma ne kenn jógut nit ñi ne ko dañ sonna nag dañoo sonna mag lu mu bugg bu mu ko foyee. am na ci na bu yàgg fa sëy yu la loolu la sëy du fow du lu ñoo foyee kon ñu ngi leen di gërëm bu baax. mu ne dafa am benn bàjjanam dafa rooti doom ji jooy di jooy rek di jooy rek ba jooy yàgg yam nag dafa mer xoñoñ mu ngi ko gàddu toog ci buntu bi mu yenu paane ndox bi di dugg si paane weñ bu njëkk paane weñ lañ daan am bi mu ñëwee rek mu ne ko yow sa doom jàngee jooy mu ne ko damaa amutoon ba jukkee gu moon moo tax te mënu maa ñëw paanam neen bi mu ne ko may wax ngay wax mu dóor ko bant roq bi te tànk bi rek mu daan bi mu daanoo dafa daanu di kaw paan bi ñaari faari dama ñu yóbbu ko lopitaan mu ne buy wax mukk na jëkkër ma ko dóor su ko waxee dinañ jàpp ko dañ ko jàpp te boo léegi doom ji doo am jabar te réew mi nañ ko bare bu dee rek ñu xam ne dee na waaye bu kenn ŋang ne su fekkee suñ demee dañ wax ne dañ ko dóor bon buñ ko yóbbu lopitaan nañ ko ba mu dee kookaa ngay xaja doom ji bu turam ti fi mu juddoo ñu naan bàyyi ma ko dóor ba teel a doxee de mu bañ loolu xam nga ne kooku du yóbbu jëkkëram te parents yi parents yi nañ leen teg te kii dafa wax alaaj saaj dafa wax benn wax gis nga jigéen ñi tam farloo naa leen waaye ñu am jafe-jafe la gune yu jigéen ñi